maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di wax ni di wax ni dañu jóge ci ay élection mu nekk une situation boo xam ni musul am ci réew mi ah, waaye ñu war ci kañ le peuple parce que en définitive le peuple le pouvoir appartient au moo koy jox ku mu ko bëgg a jox Euh, kon situation bi am kenn ku ci nekk war nga ci am lecture pointue jéem ko analyser froidement mais sans sentiment parce que notre pays aujourd'hui est à la croisée des chemins nous devons nu classe politique prendre war nañu jël suñu responsabilité man nag bu fi tolloo damay jël sama responsabilité ndaxte ñu bari ñu ngi naan cohabitation il faut bien réfléchir Sénégal fi mu toll xam ngeen ni cohabitation mënu fi am blocage institutionnel moo fi am salaire yi bloqué économie bi taxaw réew mi yëpp sonn mën na déboucher ci lu nekk te bu boobaa ñi jëlul woon seen responsabilité ñooy responsable man nag damay jël sama responsabilité maa ngi ñi ma àndal ñëpp parce que lii may wax ñoom waxtaan naa ci ñoom consulté naa ay responsable du parti mais jotewuma dara ak pouvoir xamuñu ni ñoom itam li ngeen yëg la ñu yëg tey mhm. waxtaanaguma ceeg ñoom mais sama voix assemblée dinaa jàppale ñee pour mu bañ a am blocage au Sénégal dinaa ko def xooluma ci dara sama réew laay xool ragaluma ci dara ragaluma ci dara quelques personnes yi nekk derrière des claviers la pour insulter les gens ragaluma ko man réew mi la moo ma ñor ëllëgu réew mi moo tax ma jël décision bi te te nag bu jafe woon ba jafe ñooñu duñu jël responsabilité yooyu fii ñu toll nii ñu bari ñu ngi xalaat ëllëg assemblée bloquée kenn du mën a élire président kenn du mën a def dara mais bu boobaa président de la république mooy jël ordonnance il gouverne par ordonnance te loolu c'est un recul démocratique l'assemblée doit jouer le contre le contre pouvoir mais malheureusement dafa am ñoo xam ni à travers leur réflexion dans la presse vraiment te nekk ay mag te réew nag bu tollee foofu mag ñi dañu war a ñëw nag wax ak xale yi parce que xale yi amaguñu expérience boobu seen bëgg-bëgg rek la ñuy jiital defe ni loolu la fekk du loolu loolu mooy yàq réew mi ëllëg kon nag euh, Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk am na ñu naan du côté du peuple quel est le côté du peuple le peuple qui a donné 82 députés à Macky Sall et ces gens la qu'est-ce qu'ils ont fait pour le peuple man depuis longtemps bi ma amee vingt cinq ans ba tey je suis à côté du peuple lu ma am bokk ak peuple sénégalais naan peuple quel peuple ñi ngi toog seen i kër li ñu am di ko séddoo ak seen njaboot nañu bàyyi nit ñi moomuñu nit ñi que ça suffit xam nga réew mi depuis quelque temps et pris en otage par quelques personne loolu nag c'est inacceptable ces personnes là qui ont trompé une partie de la jeunesse sénégalaise je pense que aujourd'hui il est temps d'arrêter réew mi ñoo ko bokk parce que ñooñu même bu leen yàlla joxoon réew mi ci yenn conditions yi ils auraient des difficultés pour gouverner réew boo ko bëggee bëgg ko jiite da nga koy bëggal jàmm boo nekkee président am jàmm loolu mooy li ma bëggoon a wax maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp